asalaamualeykum yow doomu aadama ba tey suñu boroom ci biir mbëggeel googu mu ñu bëgg ba def ñu nangu amaana tax mu digal mboolem mbindeefam yépp ngir ñu dikk ñëw ci jootal la malaayika yu yi nga xam ne seen boroom rekk lañ xam ci seen digalal boroom rekk lañuy nekk ba leen seen boroom subhaanahu wa bindee ba tey ak mbooleem lu dul ñoom mbooleem mbindeef yépp àndandoo maase ngir sujjootal la ci ndigalul seen boroom subxanahu wa ngir rekk yëkkati gum la yëkkati loolu sax tax mbindeef ma nga xam ne dafa jóge fële ñàkk ko déggal ñàkk jëfe ndigalam te ñàkk te muy ñàkk laa sujjootal yow doomu aadama loolu tax mu génnee ko ci yërmandeem far ko ci yërmandeem génne ko ci daat koy toroxal daat koy alag ba faaw te muy iblis te loolu dara waralu ko lu dul sa jëmm yow doomu aadama ngir rekk bëgg gi mu la bëgg ak teral gi mu la teral ba nga kawe tedd lool tiim lépp lu dul yow kon kooku bëgg nañu lool li yell ci loolu nag moom mooy ñu delloo ko bëgg googu jéem koo bëgg jéem koo bëgg jéem koo bëgg ci suñuy biiri xol subhaanahu wa taala bëgg ko ni mu ñu bëggee ndax sax yàlla mënuñu ko bëgg ñu ñu bëggee ndax jëfi yàlla nduroowut ak jëfi mbindéef yàlla yàlla la bu mbindéef ay jëfam nduroowut ak jëfi mbindéef waaye rek ñu bëgg ko xam ne suñu xol yi dara yelloowu ko lu dul moom subhaanahu wa taala